nga xam ne faloon nañ leen maanaam ay boroomi xam-xam daal leen di wër ay boroomi xam-xam yoo xam ne maanaam dinañu ànd liggéey ngir na gox bi nga xam ne moom la ñu fare ngir bañ a tas yaakaaru askan wi nga xam ne moo leen fal yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na élection locale yi ñi nga xam ne ñooy waa PDS nee waa wàllu Sénégal amul lenn loo xam ne tekk nañ ko ci élection yi yéen a gi nee ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar nërmeelu gi nga xam n moom la ñu nërmeelu ca diwaanu Gossas doy na waar ndax diwaanu nga xam ne mooy département bi yéen a kaay gi nee na ci diiwaanu ndakaaro yeewi askan wi dañoo rajaxe ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ndax ndakaaro lu toll ci 19 communes la ñeenti commune rek la Benno Bokk Yaakaar gagné li si des lépp yeewi askan wi ñoo ko ngar dajoo ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar Dakar Plateau di Gorée di Grand Dakar di Cambérène la ñu gagné waaye nag mbooleem yeneen communes yi nga xam ne des na si lépp waaye yeewi askan wi ñoo ko gagné ci ndakaaro yéen a kaay gi di la Soleil nee na Benno Bokk Yaakaar dafa ñàkk fi nga xam ne mooy Jurbel ci commune bi ak ci département bi yéen a kaay gi di la Quotidien nee na ñàkk gi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar yaakaar ñàkk ci diiwaanu Jurbel loole moo doy waar lu toll si juróomi junni ci ay voix xam ne rawee nañu ko waa Benno Bokk Yaakaar yéen a kaay gi di di jee ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon premier ministre bu Sénégal moom ne na kontaan na ci ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi Askan Wi ma ngi leen di jaajëfal ak di leen di féliciter ba tey ci journal bi Soham Wardini moom tim daan nay jaajëfal bu baax a baax ki xam ne mooy Barthélémy Dias ci ndam li nga ne daan a kaay gi di Libération xëy dañu xibaar naan ñu bu a alerté ndax nee nañu maanaam ci njobbaxtalu état gi sommet de l'état dafa am ñoo xam ne ñoo fa nekk di def ay manœuvre ay tappale ngir nag andi nag li nga xam ne mooy ak sàcc ay fraude fi nga xam ne mooy ci diwaanu Rufisque waaye nag ñoom nee nañu daal duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg yéen kaay gi di 24 heures nee nag defet bii nga xam ne Benno Bokk Yaakaar amee nañu ko ci élection yi lii nag li muy firndeel mooy nguur goo xam ne nguur journal bi nee na fanweeri communes yi ak ñaar yi ñaar fukk ak ñaar yëpp waaye yeewi askan wi ñoo ko gañe journal bi nee na Ousmane Sonko naka bu ñu waxante dëgg maanaam participer na bu baax a baax a baax ci ndam li nga xam ne yeewi askan wi am nañu ko ci biir réew mi yëpp am na nag ay analyse politique yoo xam ne nee nañu woon maanaam Ousmane Sonko carrière politique am daal dina yàqu ci coowul Adji Sarr waaye nag contraire bi la ñu gis maanaam Ousmane Sonko dafa jóge nag gën a am li nga a ji bu ñu waxante dëgg yeewu askan wi jamono ji maanaam dëggal nañ seen bopp ñoom nag wane nañ ne maanaam ñoom ñoo fi nekk yéen a kaay gii de la turbine maanaam nee na nag bu dee am na kenn koo xam ne am na lu ko naqari lool lool lool jamono ji ci réew mi maanaam mooy Macky Sall jamono ji Macky Sall kenn kenn mënu koo defa la dafa am mbetteel mbetteel mi Macky Sall am ci élection yi maanaam maara taale yéen a kaay gii de libération xëy di ñu xibaar naan ñu nag ca diwaanu Saint-Louis foofee Mansour Faye maanaam moo fa teg tànk Mame Abdoulaye Bibi Baldé bu Benno Bokk Yaakaar Mame Boye Diao nee na ab salaire am étudiant yu Kolda yi la koy jagleel yéene kaay gi de la témoin nee na ndam li nga xam ne yeeyu askan wi amee nañu ko loolee nag tax na Khalifa Sall jël na revanche am yéene kaay gi nag ci xalim ak Mamadou Oumar Ndiaye ci la témoin nee na 2024 Macky Sall nag na jël ay bagaasam ay kaakeem dem ndànk yéene kaay gi de l'Observateur nee na ana Macky Sall nag yan plan lay teg ngir nag mën a nooyi waat wala nag jóg nag ci jël bi nga xam ne daat nañ leen koy kaay gi di Vox xëy duñu xibaar nañu nag defet bi nga xamante ni benn bokk yaakaar amee nañu ko ci élection locale yi am na nag ñenn ñoo xam ne daal li ñu gis daal maanaam mooy arrogance bu doy waar a doy waar boo xam ne moo am ci biir benn bokk yaakaar ay nit ñoo xam ne maanaam yëg nañ seen bopp ba maara détaal yi arrogance boobu moo tax nag Sénégal yi jéppi leen daal leen di dóor dóor yi métte métte ci élection yi yéen kaay gi di réew mi ko di li mu wane rapport yi mooy Sénégal bokk na ci réew yi ëpp corruption guerre ci àdduna bi yéen kaay gi di Dakar